di warum na nekk ni den daal di yaatal tey ji lu daal di ñeel si euh, possibilité de euh, nouvelles nominations yi nga xam ne itam da daal di xaare ni euh, nga si li nga xam ne itam ñu koy Sonko des na ko daal di faram-fàcce suñu mu gën a yaatoo den daal di si itam si ki nga xam nekk moo di Sonko toujours sa sortie ak polémique bi nga xam ne itam am na si entre temps gis ngeen société civile opposition parti au pouvoir ñëpp génn neen di daal di li nga xam nekk moo di addu jëmale sur la sortie d'Ousmane Sonko des na ko daal di yaata suñu mu gën a yaatu daal di ñëw itam lu daal di ñëw si ki nga di la presse sénégalaise encore une fois euh, jàpp ne nag Ousmane Sonko dafa dugg ak di benn conflit din daal di ñëw itam lu daal di ñëw première exploitation pétrole ak gaz bi Sénégal na daal di exploité lu daal di toll euh, si nga xam ne que moo di de pétrole par jour loolu lépp di si daal di suñu mu gën a mais tout d'abord dañu daal ko président puis que bu Sénégal ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko fa seen daal di ak li nga xam ne que moo di en place daal di ànd ak xam ne que justement sénégalais yi euh, si quelques décisions yi nga xam ne itam des na ko fa daal di jël ni allant dans sens exactement mu nekk bés bu am solo la ci hmm. sénégalais yi bés bu am solo la aussi ci gouvernement bi nga xamante moom lañ fi teg ba mu commencé déroulé boobu léegi yàgg na yàggul ndax ñaari weer kese la jël boobu ba léegi am na yi nga xamante ne avancé nañ ko mais dafa jur coow bu bëri su ma nee coow mooy polémique gis nga ko am na yi nga xamante ne ay nomination yu ñu jot a mm. def mm. am na ñu mu neex am na ñu mu neexul mm. ndax waxoon nañ ni ko Ousmane Sonko def leen diggoon ni am na poste stratégique yi nga xamante ne buñ koy teg dañuy def appel à candidature yaa am nay sénégalais wala ñi nga xamante ne ñoo newoon ci nguur gi walla benn pàcc ci biir opposition bi nga xamante ne moom foofu la bokkoon il s'attendait à ce que mu doxalee affaire yi noonu kon ko jàpp nañ ni ko boobu ba léegi amul benn démarche bi nga xamante ne def nañ ñu ni mel kon dañuy jàpp ni ko tey conseil des ministres bi nga xamante ne mooy tey bu ñuy defal génn li nga xamante ne par rapport ak nomination yi dina dalalu xelu sénégalais yi aussi ak euh, nu ñuy wàññee dund bi ndax dafa metti sénégalais yëpp gis nañ ko te dig na aussi sénégalais yi dina ko wàññi dans quinze jours ndax conférence politique bu mu jot a animé récemment mm. fële ca esplanade bu grand théâtre mm. loolu la fa wax mm. kon loolu day rassurer sénégalais bu baax a baax ñu am yaakaar ni buñ fa yeggee aussi tam ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp ndax nañu waxante rupture la ñuy xaar te rupture boobu noonu nga wax ko nga bañ koo wax mais ñu ngi koy séentu bu baax a baax a mm. baax mm. ci pàcc yu bëri mooy tey jii nii amaana dina am ñi nga xamante ne dañuy génn mm. dénoncer lu nu mel boo gisee conférence ba mu ko waxee ba noppi am na ay opposants yu génn wax yu mel ni ay ñoom Bougane Gueye Dany ñu mel ni ñoom ay Anta Babacar Ngom mais tey yow boo xoolee ñooñu noonu amul benn sénégalais du ma ne benn sénégalais amul benn masse. Hmm. bi nga xamante ne moom moo leen di jox nopp ba mën a dégg li nga xamante ne moom la ñuy wax. Hmm. il faut aussi ñu waxante dëgg. Hmm. ndax boo amul benn popularité bi. amoo benn voix bi nga xamante ne mën nga am benn représentativité bu bu cohérente bi nga xamante ne mën nga ko teg sur la table kon nit ñi mënuñu la bàyyi xel bu baax a baax lépp looy wax rek sénégalais dañ koy dégg rek après ñu jël te ko fële ndax quoi qu'on puisse dire aussi opposant bi fi nekkoon di dérouler jël boppam joxe ko jël askanam joxe ko loolu laa ko mën a wax jël ay militant ay sympathisant am ñoom yëpp ñu sacrifié wu pour lan pour Sénégal. kon joxewul gis nga ko benn baaraamu tànkam toog di seetaan. mais boppam la joxe ba mu das ci coono gu métti métti. Hmm. mu fàtte boppam jiital keneen yàlla def ñoom ñu gañe réew mi. Hmm. kon yow mënoo toog. ndax say propre intérêt nga foog na yow da nga mën a réeral sénégalais yi ci récemment ci ay jours yu fi des déedéet nañ bàyyi ñoom ñu doxal mm. nañ bàyyi ñoom ñu doxal li nga xamante ne moom lañ dig sénégale yi na sénégalais am patience bu baax a baax xam ne réew du benn du ñaar moom moo koy sottil waaye bu ñu fàttani itam fi nga xamante ne foofu lañ jógee mm. ndax 12 ans du 12 jours sañ Fallou 12 mm. ans du 12 heures ndax 12 ans nga téye ko réew corruption bi nga xamante ne moom moo fi am xam nañ ko gis nga ko injustice bi nga xamante ne moom lañ teg yenn sénégale yi ñëpp gis nañ ko mm. ñaata doomu aadama ñoo fi ñàkk jot ñàkk seen bakkan yi si gin at yi si ginnaaw mm. ñaata nit lañ fi tëj injustement mujjul fenn mm. ñu taxaw dóoral ñu am ne amnistie dem seen yoon kon nii bu ñu ñëwee bëgg a defaraat loolu noonu noo mënul yomb kon bu mënul yomb dina am ñi nga xamante ne dinañ fippu ndax lu ñu doon am démb amatuñ ko. Mm. ndax tey jii nii su ma daan ñëw ci kër ma am ceeb ceeb bu am jën mu am lépp may doxal nu mu waree ma ñëwaat ci kër gi dugg sax du ma mën a dugg kon frustration day am. Mm. te li tax dugg ma di bi ma àndal moo tax mayuñu ma opportunité pour ma mën a accéder ci kër gi. kon tey jii nii jub bu amee si jaam rek. am taxawaay bi nga xamante ne moom ngay taxawee rek fépp foo fëgg rek nañ la ubbil bunt yi te di nga mën a yegg fi nga war a yegg kon wax jooju noonu soo gisee ma wax ko aussi damay delluwaat foofu noonu fàttali la kii nga xamante ne moo fi nekkoon ministre de la jeunesse noonu laa ko mën a mm-hmm. wax mm-hmm. mooy Pape Malick génn na def benn publication ci page am Facebook mm-hmm. am kaddu yi nga xamante ne moom la wax la premier ministre te loolu on s'attendait à ce que moom mu wax mais moom bañ ko dënkee lan la defal jeunesse bi ba mm. bañ ko dënkee lan la defal sénégalais yi amul lenn li nga xamante ne tey jii nii yaakaar la bi jeunesse bi amoon ci moom moom mu delloo leen ko defu si dara kon nit bu ñu la dënkee defoo dara da ngay toog nit ñi doxal nga noppi moo ko war <laughs> alors xam naa dinañ ñëwaat exactement sax Euh, si sorti ki nga xam nekk mu di Ousmane Sonko waaye itam rebondissement yi nga xam ni itam am na ko si euh, allant dans sens exactement aussi la réaction de la société civile mais tamit ñenn ñi nga xam ni itam doo daal di faree si li nga xam nekk mu euh, conseil des ministres bi na xam nekk mu fukkeel bi yoon maanaam dixième fois ñuy am li nga xam nekk mu di conseil des ministres jàpp itam lu ñu mel le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina ko daal di présider Sonko waaye itam l' ensemble justement de membres du gouvernement euh, loolu lépp nag daal di euh, inscrire si benn logique daal di jël ay mesures yu concrètes ne si fi tam pour daal di war a mën a xeetali askan wi euh, surtout aussi si li nga xam nekk moo di tabaski bi par preuve gis neen ki nga xam nekk moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jënd xar bu daal di toll si li nga xam nekk moo di cent soixante suñu ay koppar xar bi nag donte li nga xam nekk moo di jur na coow exactement Euh, sa fameux waxaale euh, de mm-hmm. euh, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tout cas mu nekk loo xam ni itam ñu koy daal di xaaral ni si kanam tuuti incha allah d'un moment à bi nga xam ni itam ñu koy daal di xaar si ki na xam ne mu di Moustapha Sarré mu nekk le porte-parole du gouvernement foofu si waanu ko présidence exactement alors ñu daal di poursuivre ba tey ba tey si en conseil mais chaque mercredi mu doon ak benn événement boo xam ni itam sénégalais da nga koy xaar soirée bokk na si mm-hmm. les nouvelles nominations tey mm-hmm. aussi mu nekk ko daal di a xaar ni justement peut-être. waaw waaw du ñàkk nouvelle nomination yi mu ñëw. Hmm. ndax conseil des ministres am na yu ñu jot a jàll amul ay nomination am na yu jot a am ay nomination te poste yi des na aussi. donc nomination mën ta bañ a ñàkk. Hmm. mais aussi mën na ñàkk ñu indil ñu leneen ndax tey jii nii Ousmane Sonko dafa am lu mu wax sénégalais te dafa am lu mu gëmloo sénégalais lan la leen hmm. gëmloo mooy priorité yi dafa am luy priorité heure bi nii te priorité bi moom junj na ko keroog kon priorité boobu noonu defe naa moo ëpp solo foofu la nga xamante ne tey sénégalais bi bu si jotee dina si gis boppam bu baax a baax dina ko noppal ci dundam dina ko noppal ci doxinam dina gis boppam ci biir réewam loolu du moromu nomination loolu du morom appelu à candidature hmm. foog aussi ñu waxante dëgg hmm. dafa am li nga xamante ne mooy réew réew ñun ñoo ko bokk ñuy sénégale ñun yëpp di fi yeewoo dafa am li nga xamante ne ñun ñoo ko moomal sunu bopp te loolu noonu ñu moomal suñu bopp ñoo ko war a mën a sàmmal suñu bopp hmm. pour defal lu ñu mel yow ngay acteur politique ak koo mën a doon ngay journaliste nga bokk ci société civile ak pàcc bi nga xamante ne boo mën a bokk ci biir réew mi wala yàlla dénk la kàddu nga am fooy toog di ko mën a waxee da nga war a mën a fësal loolu noonu gunge ñooñu ñoon ba yàlla yombal seeni ay mbir ba mbir mi saawaan baawaan ndax sëñ Fallou dëkk bi bu baaxee su ñun yëpp la mm, baax mm. dëkk bi bone itam su ñu ñëpp la bon ndax tey jii nii Sénégal dafa jot fi nga xamante ne moo ñu génn ci benn étape am fu ñu dugg ndax mm. dafa am fu ñu nekkoon mm. te fu ñu nekkoon ñëpp xam nañ fu lëndëm la woon mm. te leer bu ñu ganisee dañoo war a génn ci lëndëm boobu dem fekk leer gi te leer gi feeñ na te feeñ ga mu feeñ dafa fësal dëgg te dëgg fépp fu mu feeñ rek te defe naa xaar amatul da ngay dem fekki dëgg googu noonu mën a doxal say mbir ndax ñaar yooyu rek moo fi nekk hmm. dëgg ak njub dëgg yàlla moo ko moomal boppam hmm. njub doomu aadama bi moo koy amee mu doxal ko ay hmm. mbiram leer mais bu ko ameewul amul lenn li nga xamante ne mooy finalité buy amal njëriñ nit ki la mooy foog tamit ñii fi nekkoon ñu dënk leen ay responsabilité te amul lenn lu ñu ci def mooy rendre ñu compte sénégalais ci li dal seen xel ñu jël sunu alal caxat-caxatee ko jël ay privilèges yi nga xamante ne ñoom am nañ ko gis nga ko ñu muur si seeni ay njaboot muur si seeni ay nit muur si seeni ay àndandoo ay sénégalais yi nga xamante ne waroon nañ see jot jotuñu si ñuy souffrir di sonn ay ati at ay jeunes yu war a mën a am liggéey yore ay diplôme di traîner dans les rues ñii di mm. dawal ay moto jakarta kon mm. loolu loolu lañ doon kaas loolu lañ doon jooy ñu ñu xamante ne ñëw nañ nag pour saafaral ñu lu ni mel dañ leen di taxaw dañ leen di défendre ba ñu ñu si dara nit ñi nag bu leen neexee ñu ne journaliste warul am beneen taxawaay journaliste dafa war a <laughs> relater les faits ainsi de suite loolu yàgg nañ ko dégg gis nga ko mais loolu du ñu jaaxal te loolu du ñu yëngal loolu du ñu def benn effet xam nga lu tax ma wax la dara hmm. amul lenn lu daam jaam di tiit ci kaw suuf hmm. la tax ngay tiit la tax ngay jaaxle dafa fekk fi nga teg sa tànk amoo benn assurance bi nga xamante ne bu leer la. leeraay boobu noonu lenn moo koy confirmer mooy réalité bi nga xamante ne sénégalais yi ñëpp dañ ciy teg seen gët te réalité bi ñëpp xam nañ ko nekkatul information ci nopp sénégalais yi. dafa am mais li am nag ñëpp xam ko boo si doxee yow taskatu xibaar bi da ngay noppal sa bopp ndax boo fekkisee li nga xamante ne mooy réalité la rek yow da ngay noppal sa bopp te da ngay leeral sa yoon te da ngay mm. yombal sa mbir mm. boo jëlee nag beneen yoon sañ Fallou dañ la koy nangul waaw ndax <laughs> àdduna moom ñëpp du ñu ànd ci benn bloc de note mën a rédiger li nga xamante ne mooy lettre bi nga xamante ne mooy mën a jàll ci fu mu war a jàll mm. mais bu amee ñi nga xamante ne jël nañ beneen paar wala jël beneen pàcc beneen yoon à kon ñooñu dañ leen di bàyyi ci seen yoon boobu noonu mais duñ leen ci ŋàññi benn yoon mais lépp lu ñuy wax nañ ko teg ci yoon lépp lu ñuy wax nañ ko teg ci yar. Mm. foofu noonu dama fay dugaat bu baax a baax par rapport ak ñun taskatu xibaar yenn information yi nga ne moom la ñuy jàllale. Mm. gis nga keroog le premier ministre Ousmane Sonko lu mu wax ci conférence bi. Mm. am na lan la wax journaliste yi. voilà si conférence exactement ni euh, par rapport ak wàllu wu nu mel. alors donc sans plus tarder